kon dal yow 3 troisième mandat bi Macky Sall di lam-lamee yow dal euh, d'accordone wala gëmoo ne war na ko mën a def. Euh, je pense que de ce point de vue débat la bo xamni président Macky Sall sax xaj ay fukkoo yu nek ci wétam ñoko ko imposer mais mom xélam xalaatu ko de ce point de vue constitution bi dafa lèr nul ne peut faire plus de deux mandats successifs. mooy bu ñu ko tekkee ci wolof amul kenn koo xam ni mën ngaa def ñaari lu ëpp ñaari mandat yu tegaloo loolu nag waxu ci ma Samba waxu ci ma Demba waxu ci président Macky Sall waxu ci kii topp ci moom waxu toppaat ci moom dañu kenn mënta def lu ëpp ñaari mandat yu tegaloo nekk président de la constitution bi foofu amul juridisme amul interprétation amul constitutionnaliste amul dara constitution de dafa lèr nañ moy un troisième mandat est une tentative de coup d'état de président Macky Sall xanaa dina jël leçon ci la président Abdoulaye Wade ba du dans ce chemin sinueux là bo xam buñ ko ci moitié des parce que c'est le peuple sénégalais moy dressé contre lui parce que a quand même réew mi day dox peuple bi dafay dox je pense que une aventure risquée président Macky Sall De ba ci dugal ba ci dugal Je parce que de ce point de vue man je dépasse la question du mandat présidentiel Dans ma japonais, limitation au mandat <coughs> dañ ko war dans toutes les stations électives du Sénégal Mais boy président muy ngay député muy ngay président conseil départemental muy ngay maire muy ngay conseil municipal foo def ñaari mandat da nga war a dégager parce que fukki at lu ci waaye bëgg liggéey réew mi mën na ko cee def ci station ba mu nekk du du ci maire rek lañ mën a liggéeyalee sa gox du ci président rek lañ mën a liggéeyee lañ mën a liggéeyalee Sénégal du ci député rek lañ mën a liggéey Sénégal et je voudrais vraiment ci constitution bi ñu constitutionnaliser donc les deux mandats successifs impératifs yo xam kenn du ko weesu impérativement quel que soit type d'élection bi bu mën di nek mu leer ci bop ñëpp ni fo def ñaari mandat vraiment da nga mën nga abale kenen ñëw parce que kenn du agalé may ñu may nañ ma may ma agalé sama chantier mom wax ju yàqu lutax moy ni kenn mënta matal kenn mënta matal yàlla kese mën a matal boo jéemee nag fukki at la nga man def nga ko man ngaa bàyyi ñeneen ñu topp sa ginnaaw ñu ñëw mottali sa liggéey jël sa xalaat yokk ci seen xalaat seen xalaatu bopp pour que Sénégal gën a mën a dox pour que euh, département gën a mën a dox pour que assemblée nationale gën a mën a dox pour que mairie gën a mën a dox et loolu je pense que lu ñu war a constitutionnaliser mu leer dans la dans la tête de chacun et je pense que Taïwan a l'air président Macky Sall deux mandats il dégage